asalaamaaleykum wa rahmatullah barakaatu mbokk yi maa leen nuyu leen ziar bu baax di leen dalal seen chaîne YouTube bi nekk benn Makhtar Lo l'officiel euh, di kontaan chaque jour rek di daje ak yéen di séddoo ak yéen xam-xam suñ xol di si sedd trop ndax yor dara mu nekk sa dënn bi dëgg la nag am na si yoo xam ne biñ koy jot sonn nañ waaye alhamdulilah rabbil alamin ba yàlla may ñu xol buñ ko mën a séddoo ak yéen. dégg nga di kontaan si yéen bu baax am na ñu fi nekk nag di ñu sànni xeer ñii di wax lu leen neex waaye ba tey duñu reculer dana métti nag waaye daneen continuer di leen jox ay secret daneen continuer di dimbalante ak yéen waaw képp koo xam ne si nii rek yaa ngi ñu yaakaar di def secret yi fii ak mu mënti mel ñu ngi lay sant di la gërëm ñii dañuy yàq ñii di defar am na si ñoo xam ne si lay yónnee message lépp rek pour tooñ wala pour nangam nangam waaye yàlla may na ñu maîtrise buñ buñ mën a dëkkoo yooyu yëpp dara kon tey damaa ñëw tey incha allahu rabi pour indil leen lu jëm si wàllu euh, pour boo bëggee gagné ay jeu moo xam wàllu pari foot la moo xam wàllu jackpot la moo xam wàllu comme gars yi lu ñuy def daal ay wàllu carte yu demee noonu dafa am abonné bu ma si topp di ma ko laaj nag ba sonn ak euh, ak ñeneen ñoo ñu ngi extérieur moo tax ma ne nag naa si jéem a góorgóorlu indi leen ko ndaxte am na si ñoo xam ne bëgg nañ am chance di gagné si yenn jeu yi tey ma indil mooy li ngeen gis mooy la mu a jaxadin bu ngeen gisee si miimu la mu xan a jaxadin bi maa ngi si bind la xalqa samawaati wal ard ba walakin aksaru naasi laa ya'lamuun aay bi yëpp si miim bi nga koy bind soo paree nga def si fi nga gis ma def ismu maanaam mooy tur mooy noo foofu ngay def sa tur ak sa sant su ko defee euh, la mu xan a jaxadin bi da nga koy bind euh, juróom-ñaari yoon dégg nga soo paree nag nga nga jël euh, parfum bi ñuy wax bind Soudan. nga def ko si biir saafara si boole ko ay ay quelques pièces xaalis ak boo amee euh, billet tam mun nga ko def si biir saafara si dégg nga di ko euh, di ko raayoo dégg nga boobu moom benn bi la ñaareel bi mooy da ngay bind la xalqa samawaati wal ard ba walakin aksarun naasi laa ya'lamuun su ko defee nga bind ko soixante dix fois boo ko bindee soixante dix fois ba pare jël lépp loo xam ne dañ koy def si affaire carte moo xam ticket yu ñuy xoos la moo xam nangam nga jël dugal ko si biir saafara si dégg nga ak xaalis. moo xam bu dee billet dix mille wala nangam nga dugal ko si biir def si tamit parfum bind Soudan trois trois bind Soudan nga si def bee da ngay def trois fii tam nga war a def trois bu ko defee moom tam nga koy sangoo bu la nee nga sangoo ko benn yoon bu la nee itam nga si raayu rek comme chaque jour da di jouer nga si raayu beneen ba tam mooy lu jëm si wàllu yooyu noonu pour am sens pour di gagner si affaire yooyu noonu ay boobu ngeen gis muy euh, laqal xasamawaat dañ koy boolee tegee ko ak xaatim di ko def si jaaro jaaro xaalis loolu uniquement pour ñuy def affaire carte yi affaire jeu yi la waaw pour ñuy jouer di jouer bëgg a so soo jaaru am na ñu ciy liggéey yoo xam ne xaatim bi si biir lañ koy def incha allah rabbi ku mu intéressé rek mën naa jokkoo ak ñun si côté boobu ñu seet nañ si dimbalante mais li ma leen wax nii moom euh, si wàllu la mu xana jaxadin bi maa ngi koy répété la mu xana jaxadin da ngeen koy bind dégg nga euh, mim bi ngay yaatal def si la xalq at wala ard ba na ak sunnaas laa yaxlamuun si suuf nga def sa tur dégg nga mais da nga koy bamtu ba muy juróom-ñaari yoon soo paree nga def si parfum bindu Soudan bii ngeen di gis seen ndeyjoor ñetti parfum bindu Soudan ngi sotti si biir def si pièce xaalis dégg nga ak yeneen yu muy ànd ak yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ak tam xaalis ak tam li ngeen di joué seen quartier yeeg yooyu noonu boole ko saafara bi ko sango beneen bi mi ngi nekk la xalq bi mu ngi bind la xalq samaat wala soixante fois ba mu jeex nga boole ko tam parfum bindu Soudan euh, ñetti parfum di ko sangoo. muy lu ama ama am solo loo xam ne incha allahu rabbi ah bu ngeen ko defee nag da ngeen si gis ay tawféex ndaxte am na ñu ma ko jot a defaral am na ñu ma ko defar jot a defaral macha allah ñu ngi sant di gërëm te ñu ngi si gis seen bopp bu baax kon tey lii laa indi woon ne naa ko ñëw partage ko ak yéen di leen di ñaanal di sax ngeen ñaanal ñu di leen jox dig daje bu subaa jàmm incha allahu taala asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.